administratrice en 2019 Yaye Fatou Diagne 660 millions de francs CFA dépenses sans justificatif. ah na ko justifié. yëg nga ko depuis démb. ma ne yaa wax français. dépense sans justificatif. na ko justifié. waaw ñëpp dañ ne ko justifié. bu ko justifié boobu la ñuy laaj. Ah, bu ko justifié ko. na yoon def liggéeyam. surtout foofu ngay tranché. daa ah, amul si man direct laa. c'est-à-dire il faut que ñu comprendre la redevabilité la bonne gouvernance la redevabilité et la bonne gouvernance dafa mhm. war a bokk ci suñu ay mbir. Mhm. buñ la dénkee loo moomul dañ la war a saytu. loo moomul bokk la war a càmbar. Mhm. buñ la dénkee mbir. dañ la war a càmbar xool la dénk. lan nga ko doxalee fan nga ko duggal. bu jaar man bëgguma ay cas personnel. mais dama de manière générale état dafa ay structure cour des comptes of nag. Mhm. bu ñu defee seen liggéey ba pare bu ñu jàppee ni yoon da ci war a dugal loxoom yoon jël jox ko ay yeneen enquêteurs ñu xóotal gasal. Mhm. képp mu sàcc àll réew mi na ko génne. punto final Bassirou Diomaye nee mm. man maa ko siy dooleel. suy bale cuuraay. <laughs> waaw fel matt mbóot. te mm. yëpp génn. <laughs> yéen yëpp dëgg la sax. le débat yi couleur réew moo xamante ni mm. les gens amuñu ambulance. doy waar fi ma toog nii am na benn xale bu jigéen boo xam ni ça fait une semaine mu ma topp. parce que yaayam dafa feebar à Touba. waaw lu métti. am na keneen koo xamante ni barki démb la ñëw yaa ji xaw a am affaire AVC. Mhm. mu wax ma ko ma taal sama oto yóbbu ko dispensaire Dominique mu pare ñu ne ko da ngay dem faat mu génne li ma yoroon jox taxi. Mhm. ndeysaan. lu boole ma boole koog sama benn xarit ma koy remercier docteur Cissé moo nekkoon euh, mooy médecin wu euh, Ousmane Sonko c'est un ami a grandi ensemble su ma amee kaa booy dimbali ma ci. Uh-huh. mu taxaw ci léegi kooku war na def ay analyse uh-huh. ana koom-koom bi koy. léegi ay nit toog na ko dañuy ba pare toog non mais attends. nañ ko génne. waaw yow. teg ci table. mooy yow ban <laughs> eh, nañ ko génne laa la wax. son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi ngi lay seetaan tey boo amoon message boo koy lancé état jeune waaye aussi lan ngay xaar ci moom ci Sénégal te bu ñu fàtte ni le 20 juin war nga dem France dajeeg Emmanuel Macron. Euh, d'abord dama koy féliciter personnellement. Mm-hmm. parce que xam naa ko avant lii am. Mm-hmm. Euh, maam moom nag ay relation humaine relation de de de mm-hmm. frères. parce que jaa fekk si sama cadre liggéey lañu xamante parce que nekk naa ci média yi donc li may nekk Sen TV. Mhm. parfois dañuy soxla sax ab invité. nee naa Aïcha daf may sonal Cheikh Omar ñu am kenn boobu Pastef donc euh, j'appelle Diomaye téléphone mhm. grand xoolal ma kenn. balancé ma kenn. Mhm. parfois il arrivé sax man nit toog bind ma sax message. dañu bëgg a bokk Pastef ah ñun ñu ngi Brésil wala ñu ngi Mauritanie. Mhm. mais comme moom laa si gënoon a miin parce que aw ma ak Ousmane Sonko relation. relation donc damay jël message rek ma transféré ko. Mhm. Bassirou su ma ko transféré mu ne mu ma jox leen sama numéro ma boole leen donc comme ni ma amee relation ci des gens yu nekk Pastef am naa relation des gens yu nekk APR. Mhm. mais euh, relation yooyu la ñu am. et euh, parfois mu bindante message parfois ñu wax. et euh, yàlla def mën naa la jox benn anecdote xam naa ne nit ku laa biir la. Mhm. macha allah loolu mën naa ko seede ci moom. Mhm. sama téléphone bu ma jege woon ma woon la. Mhm. Euh, dama toog benn bis mu am nag <laughs> maa ngi lay nuyu. ci boppam waaw daa ne maa ngi lay et dafa dal dafa correct très courtois. mu ne ma maa ngi lay nuyu waaw dafa am si seen télé émission bi Iran Ndaw di def nii la ko waxee. Mhm. benn xale buñ fi génnee bu feebar. Mhm. man Bassirou Diomaye dama ko bëggoon dimbali. macha allah. man ak euh, sama beneen sœur patriote. Mhm. mais bëgguma muy feeñ muy feeñ ci télé bi. lii la ma wax mu ne ma dama bëggoon nga fexee ma mën a am euh, numéro parent xale bi ma envoyé ko message ma ne ko ah loolu lu rafet la. mais comme man def ma émission bi ki koy coordonné. Uh-huh. mooy Ndeye Khady Thiam xaaral ma jox la. numéro Ndeye Khady Thiam Tall. Uh-huh. ma woo numéro uh, Ndeye Khady Thiam Tall pour que moom mu intervenir d'habitude da nga doon gis kenn. ñëw dimbali xale. di uh-huh. joxe sa tur pour ñu mun ko wax si télé bi ne yaa baax mais kii boobu nekkul président xalaatul sax lu nekk ci président donc euh, loolu laa biir weesu donc pour man euh, nit su amee. laa biir bi. Mhm. day day am solo et puis fi mu jógee dafa sori quoi il vient de Diaganiao. Euh, il vient dans le Sénégal des profondeurs xam nga. Euh, souvent, c'est c'est pas la réussite d'une personne, mais c'est la réussite de tout un village, de toute une contrée. Mhm. dem ba nekk un Euh, parce que ñun ñi nga xamante ni dañu ancré socialement. Mhm. du du du ñun mais c'est toute une communauté et puis euh, yàlla mooy nam ci ci doomu aadama tey dama gëm ni yàlla bu la joxee yem dina la jox tey. dëgg la ensuite euh, beaucoup m'ont vu peut prestation de serment. Mhm. parce que la veille lañ ma invité man xalaatu moom sax dañ ma invité prestation. pour man c'était pas lui parce que beneen génération bu la. Mhm. la génération qui est née euh, dix ans vingt ans après les indépendances et fii dama koy ñaanal yàlla may ko mhm. réussir parce que bu bu amee ndam génération la mu am ndam. Mhm. et naa ni yàlla dina ko ci taxaw. maintenant li ci des ñun ci luñ mën ci suñu xalaat. mu faroon ngeen wala déggante ngeen. non parce que léegi c'est président de la république madame Bachir je ñeme ma ko sax bind message. mais pourquoi ah, mais xaw ce que changé wul numéro xaw ma de. non mu yoroon la. mais non je veux pas l'encombrer donc pour man il est dans son rôle et puis euh, ce n'est plus le Bachir d'avant. maintenant uh-huh. c'est le de la république il a une très grande responsabilité. effectivement te ñaanal yéen sunu xalaat. Euh, accompagner et demain su ma waree critiquer dinaa ko critiquer su ma waree wax suma xalaat naa wax suma xalaat. Uh-huh. aussi bu bu soxlaa suma suma suma xalaat wala suma taxawaay ça y a pas de problème. parce mu nekk le président. Uh-huh. s'il la besoin d'un service su ma waxee ma taxaw ko. Uh-huh. donc pour man euh, du c'est pas sa personne yëfam mbiru yàlla la. rencontre mook Emmanuel Macron. le 20 juin Bassirou Diomaye. ay mbiram du neen. macha allah. suñu borom neen. garab bi war a nekk garab penc law ba di ko gis ba di ko gor. dëgg la li ko yàlla nëbboon. Mm. fësal sonko gaa di téere sonko di gor mm. sonko yàlla nëbbal ko boppam. Mm-hmm. weeru koor ñu jàpp ko tëj ko. produit fini ci biir kaso bi. Mm-hmm. la nekkee mm-hmm. biir kaso bi la campagne bi commencé. yeneen candidat di génne RTS moom nanguwuñu mu génn. yeneen candidat di campagne di tourné moom génnul kaso. juróom benn fan mu yor bale bale ñëpp uh-huh. ñoo toog <laughs> baax na ñoo toog fële reñe nag donc pour man euh, yàlla mooy wane boppam rek parce que am na benn saaraw xalaat suratu Yusuf uh-huh. am parfois Yusuf ñi mu bokkaloon gannaaw bu mu defee géntam ñoo ñooy wut seen pexe pour fexe rek uh-huh. tàggale ko bu baayam pare nañ sax pour rey ko ba kenn ki yàlla wala bëtiku ne nañ ko def ci teer mais bu fekkoon ne ñoom duggaluñ ko ci teen destin bu commencé parce que teen biñ ko dugal uh-huh. moo tax caravane yi for ko dem jaay def ko jaam bu mujjee ca pale ba uh-huh. donc yàlla parfois buy defar day mel ni buy saboot donc man mbir mbiru mbiru yàlla la et bu waree gis Macron uh-huh. sans complexe aucun ah. oui il faut ñu am taxawaay bi et France léegi du ñu am ah. Sonko a été très stratège seen gars yi dañu Diomaye ak Sonko comme ay Ousseynou ak Assane quoi boo doon seetaan film policier am ah, film policier da ñaari policier mhm. day am koo xam mooy ñëw yëngal affaire yi am koo xam mooy ñëw seetaan léegi kii daa ñëw yëngal affaire yi boo seen opposant mu ñëw mu dalal ko mhm. ba pare dal ci kaw Macron mhm. waaw yónnee ko ay message waaw ba pare jëw taj dëgg donc la on veut montrer à la France on veut montrer à l'Occident que vous vous avez besoin de nous que vous vous avez besoin ñun ñoo am lépp macha allah

donc sa équipe maa ngi maa ngi nuyu équipe naa leen ziar naa leen. et émission boo xam ne waxoo ma lan la ñuy waxtaanee. fu la nga dugg fa loolu dugg ca mais soo soo bëggee xam man maay kan. jàppal ni daal pour man àdduna ñett fan la. juddu dee ak nettali. dëgg la. te dañuy mhm. ñaan nettali gu rafet. donc nit ki doomu aadama même boo mënee saxal benn garab sax nit ñi di ko jëriñoo. am na am na solo. macha allah euh, loolu daal. Euh, di wax ne ñaanal a en tout en tout cas dama lay encourager ci ci ci ci li ngay def en dehors de la télé donc ci œuvre ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum social nee naa ko social moom àdduna gisuma lu ko lu ko lu ko gën dañ lay ñaanal suñu borom sàmm la. man man cas social la. <laughs> cas dimbali ay social. dukure sama ñoom dukure. Ah. samay gars yi lañ. ma war a laaj ba tey laajoo ma ko quoi. non yéen <laughs> ma war a laaj dafa dees waaw waxal non garaaw. non non wax ma ko dañ ah, ko denc deuxième tour mais wax ma. non lépp mënoo non waaw ko. lépp mënoo koo xam. am na loolu au cas ma. ma ma kaala. man de eh, dama am nag ay daara alxuraan yu eh. eh, ma bëgg <laughs> a jàppale. commerce yow commercial da <laughs> ngay fay. léegi daal képp kuy jullit na nga jàpp. léegi moom bu ngeen ko woowee rek dina leen ko jox non c'est vrai parce que euh, dama toog keroog sama kër benn femme ndeysaan ñëw xaw ma ko de mu laajte ba ñëw suñu kër indil ma lettre am ne ma seen daara alxuraan dagana. macha bu nekk dañuy jàngal xale yi alxuraan pour euh, wàccee fay kaamil. waaw ci man ndimbal loolu sax garaaw ma amaat beneen euh, daara alxuraan boo xam ne dama may xale yoo xam ne maa leen parrainé. Mhm. bi ma demee ci daara alxuraan la. mu jéggi leen ñu ne am problème tere